salaamaaleykum ASC Dex gi salaamaaleykum ASC Guney tey ñu ngi fii tey ci euh, terrain ASC Dex gi ñoo fekk si leen fii seen terrain entraînement xool na la ñuy préparé seen demi-finale bi nga xamante ni demi-finale historique la

matcham bi nga xam demi-finale la moom ak euh, Guney tey donc coach ñu bàyyi nga def présentation. maa ngi tudd Samba Diouf euh, nekk entraîneur u dex gi. Euh, ñëw fi ren pour jéem a yokk équipe bi doole ci sama xam-xam bi ma am par rapport ak année yi passé pratiquement chaque année su ma toogee un à deux ans souvent danaa finalu maintenant nag pour année bi hmm, maa ngi ci liggéey bi ak équipe bu ndaw léegi nag ñun ñu fa ne ñun ñooy yokk doole équipe bi pour mun ko gën ko may jëmm équipe bi nak légui ñepp mën ko ragné xam kan moy dex gi mais légui nak pour nga xam dex gi il faut nga ñëw xam ñan ñoo nek ci gënaaw dex gi. wala yow la mëna pousser pour nga ñëw dex bi la moy sa ambition. pour euh, sama ambition moy man souvent damay bëgg di jël équipe bo xam dara neewu fa pour ma jëm fa def dara bon pratiquement euh, chaque année lañ ma naan sa mu jël fa am chance finalu mais afam am liggéey bu fa nek pour nga finalu waaw bu doon woon xam-xam bi euh, ak doole je carton ji je pense que ne pour nga finalu du yomb entraîneur yi bari nañ fi mais néew na ñuy toog ñaari at benn at te finaalu wuñu man nag depuis ma nekkee ASC cosaan finaalu naa fa finaalu waat moo tax ma doyal Pikine ñëw Géejawaay pour jéem a indi sama xalaat ci équipe yu ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo fi ne moom ko mel ni dex gi waaw. voilà donc ñu jëm ci match bi nga xamante ni nag mën na jàpp ne daje daje ngeen dajawaat. donc ñu ngeen mu nek match bi nga xamanteni équipe bi vraiment xamanté ngeen bu baax parce que joué ngeen ngeen gagné ko donc mu nek ben match bo xam mën na jàpp ne revanche yow naka nga préparer sa équipe pour ñëw si ah, waaw waaw man sama équipe dëpp bobu légui man ma ngi préparer match buma jall jall na ci damay xol sama objectif ren euh, équipe bi ci histoire am marqué na musul dem demi finale première année ma ngi ni mu dem demi finale kon bon ren suñu objectif xamuñu li xew déwén moy jeu final équipe bi ndajalon gagné nañ ko mais contexte du nek ben championnat ak euh, match coupe du ben Euh, équipe bu mag la ay joueurs yu mag a fa ne ñun ay xale lañ yore mais ñun ñooy indi suñu xalaat ñun ñi nga xam ne nañ ci métier bi ñun ñooy indi suñu xalaat pour jéem a nan def ba gañewaat euh, gunay tey. yow la nga match bi. Euh, engagement. Hmm, concentration ak consigne yi ñu leen di jox. buñ ko allah dañ ciy yow est-ce plan médical mën nañ jàpp équipe bi au top. au top depuis lors vraiment aw ci xel ñaar depuis lor euh, vraiment mhm. euh mang ci gis euh, sante yalla bu baax mhm. groupe bi amul ku manqué ñoom ñëpp daanaka teew nañu pour préparer demi finale bi demi finale dafa neex mhm. euh, bo finalo bo gagné da ngay dem finale kon actuellement ni impérativement li ñu war ñun moy gagné. légui est-ce que est-ce que équipe bi nga gagné won équipe bi nga gagné won ni nga indi won est-ce que noonu nga parce que jàpp nañ tam équipe yaa ko gagné won waaw man mako gagné won euh dana am tuuti changement mais dafa am lo xamné ne ñun dañ koy neub ba bés ba parce que du leen mën nañu toog ñëpp di xool li ñuy def mais la ñu war a taxawaay bi war ci xale yi suñu demee regroupement ca la ñuy mën a xam suñu taxawaay mais doo dem guerre di wane say arm yi nga am dañuy nëbb loolu xaar ba bës ba bu ñu ñëwee terrain ñëpp dinañ gisal seen bopp ne lii la euh, dex gi bëgg moo tax mu taxawee nii bon ñëpp a ngi naan dex gi du jouer du jouer peut-être mais ñun la ñuy liggéey dañuy liggéey pour gagner ñun bu ñu continuer nii ci dex gi bëggal coupe bi ci nii dañuy sant yàlla. voilà donc mu nekkoon coach su coach euh, su ASC Dex gi donc fii nga xam ne fekk nañ ko fii seen match entraînement du xool na lay préparé match bi nga xam te ne moo dox ci digganteem ak fële ak euh, ASC gu nay tey donc ñëw nañ jël quelques expressions ci moom donc gis ngeen ne tamit tey préparé na équipe am psychologiquement équipe bi pare na te aussi équipe bu ñu gis ñu entraîné xam ne ils sont très confiants pour jouer seen demi-finale bi donc ñu leen souhaité bonne chance. kenn Abdoulaye Sylla di capitaine ASC Dex gi ñu ñëwoon fekk leen fii seen entraînement ñëw laaj ko moom quelques expressions. voilà Abdoulaye Sylla yéen ngeen na match nga xam te ne demi finale la mu nekk match historique psychologiquement naka ngeen préparé match yow ak say ak say ak say copains waaw match bi ñu ngi koy préparé moom normalement parce que aussi dafa nekk match bu métti quoi parce que ñoo ñoom daje woon nañ li leen dóoroon 1-0 quoi xam loolu day tax ñoom dañuy gën a préparé wu instant ñun moom ñu ngi suñu waaw di récupérer tamit nice quoi. voilà donc euh, équipe bi nga xamante ne comme nga sa wax da a joué woon war a jëlaat match demi finale donc yéen naka ngeen parce que plusieurs fois dañuy téer ñu door score ay 3 ay 2 affaire du genre quoi mais keroog dañoo ñëw rek yaakaar ni ñëw rek jaar suñ kaw quoi mais bañoon nañ ko nag bañoon mais match dina gën a trop trop trop parce que dañuy gën a seen supporters seen lépp dinañ jug quoi mais match dina métti trop mais ñun moom ñu ngi pare quoi voilà moom dala koy gagné dal dal surtout aussi ñu jox leen respect quoi bañ leen minimiser parce que moom football loolu moom ki ngay avant tout da nga ko déglu ko bañ koo yëpp quoi bu dul loolu moom il va te tromper mais ñu ngi pare match bu baax a baax bu baax sax mais est-ce la mooy force dex gi parce que gis nañ dex gi dafay monter en puissance nekk première fois bu ñëw demi-finale yéen mën nañ jàpp la mooy secret dex gi ah derrière moi mooy loolu xam ne mu fi nekk rek dirigeant ak joueur tamit am joueur engagé c' vrai que ASC moom bërul ay joueur yoo xam comme ni ñu koy dégg ngay dégg ay diw affaire du genre mais dafa nekk boo xam ne booy engagé wu boo yoo xam ne dañoo bàyyi ndax football aussi ëllëg tamit bëgg a maanaam nekk si club bi quoi te loolu pour nga def ko il faut nga wane sa bopp baax si stade bi quoi. est ce que mentalement pare ngeen projet waaw stade moom par nañ bu baax bu baax sax bu baax sax voilà mu nekkoon Abdoulaye Sylla di euh, capitaine ASC Dex donc ñëw jël ko kenn expression par rapport ak match bi nga xam te ñu koy jouer demi finale mu nekk match historique parce que demi finale lañ qualifié une première fois donc ñu leen ñaanal bonne chance et que le meilleur gagne ñaari ASC e yi waaw ñu ngi ak Talla Thiam muy euh, président comité supporter bu ASC e Dex gi donc Talla ñu ngi lay fay grand voilà donc Talla yéen ngeen di jëm ci benn match bi nga xam te ni match historique la muy demi-finale bi ngeen di joué yéen ak euh, ASC e, euh, Guney Tay donc ku wax ASC Guney Tay xam ci mobilisation ak ci forte mobilisation donc yéen naka ngeen di préparé match bi waaw ñu ngi koy préparé préparé bu am doole ku xam Dex gi xam ni Dex gi ASC bu mag la bu ngande dafa bëri ay jeunes te gars yi bëgg nañ bi dañoo nekk nag xale moo tax mooy loolu mais képp ku xam dex gi boo ko gisee esa da ngay xam ne dex gi ñëw nañ match bi nag suñu match la dañ ko respecté bëgg ko bëgg koo xam ne supporters yi mënuñu tëdd mënuñu nelaw groupe WhatsApp yi gars ñu ngi wax guddi ak bëccëg mobilisation bu am doole la ñuy indi esaat esaat li may ñaan gars yi ku yéex doo am place. ku yéex doo am place donc ñu xam ne tamit ASC Guney comme li ma waxoon sànq rek moo nekk bokk na ci zone 4 ASC bi nga xam te ëpp mbooloo donc yéen gone deqi tey naka ngeen fexe mobilisa mobilisation nan nga ko mën a defee pour ñëw stade. gone tey bari wuñ gone benn koñ benn ruxu la quoi man loolaa ko jàppee benn ruxu gone tey ñoom dañuy dem ab ay supporteurs. te ñun fii lépp koñ bi ku xool dex gi xam ne dafa yaa dafa yaa mbalang gone jour boobu bu ñëwee ñu leen gis mhm. dinañ fees état bi deel ñun dex gi yëngal ruube non violence jël affaire yi xam nga kon yëngal gone man xool ma sax seen supporter parce que ñoo leen gën a bëri fop boo leen déggee seen bi wax boo xoolee seen tiset sax dóor fay lañ ci dëgg yéen aussi yéen naka loolu naka ngeen ko jàngatee gone tey trois fois lañ dajeeg ñoom bi mooy quatre fois dóor na ma deux bii nii gone see dama koy dóoraan ndox du bàyyi yoonam xale maa gën a xale maa gën a loolu laa leen mën a wax xale maa gën te xam nañu yoonu nawetaan instant bii yow nga xam te yàlla jiite muy seen i supporters yeeg naka nga leen ñaaxee ak sur la non violence surtout non man moom damay sant yàlla parce que booy dañ maa déggal su ma ne def leen ñu def su ma ne bàyyi leen ñu bàyyi képp ko xam ay see dex yi ci si senior yi bu ñu ñëw discipline la ñuy ñëwee yaru toog suñu kawee zëngal suñu équipe bu gañee bu ñu ko gañee yëpp ñu ànd dem ñibbi dex gi bu mu sosoo ba léegi kenn mësu ko dégg newetaan ci dara ci ci violence wala nii bu ñëwee dañuy ruubee ñoo moom suñu kawee nag dañuy ruubee sotti ndox waaw neexal comme ni ñuy def yor aziko yi mais kenn mësuñu xam ci violence wala dara sama gars moom maa leen di ci loolu di leen parce que ñoo dañ koy teg ci code man côté boobu moom nice mooy loolu. voilà mu nekkoon Talla fii di président supporteru ASC Dex gi ñu woon ñu fii jël ko quelques euh, expressions yi nga xam te ne jël na ko donc ñu jàpp ne vraiment boo gisee nii sax nga xam ne ñoom pare nañ pour jouer ak ASC Guney Tay fële si demi finale stade Amadou Barry donc euh, ñu wax leen euh, que le meilleur gagne et bonne chance fii ak Galaye muy kenn ci représentant mën naan ci dirigeant ASC Dex gi donc Galaye tey ñu ngi lay bàyyi nga def benn présentation waaw euh, alhamdulilah man maa ngi tudd Galaye Niang voilà maa ngi bokk ci ASC ASC Derklé bokk ci dirigeant yi président de commission voilà ma toogal bi suñu président Rawane Ba mi nga xam dafa absenté voilà di rafetlu seen teewaay tey waa waa info macha allah di leen wax bisimilah ci ASC bi ASC Derklé voilà di nuyu waa ASC bi yëpp di leen nuyu aussi yéen ci déplacement yi ngeen def

déjà ngeen première édition mooy euh, match de poule ngeen dóor leen 1 donc ngeen war a dajawaat demi final. donc naka ngeen di préparé match bi ci côté côté finance laa wax est ce que match bi ngeen joué woon euh, premier match bi ak deuxième match ñooy tolloo ci côté finance. waaw comme ni nga ko waxee joué nañu ak ñoo match de poule ñu gañ leen 1-0 mais pour rappel rek ren ASC bi bokk na ci année yi gën a difficile financièrement ci ASC bi parce que daaw.

ba tax na lépp lu ñu am rek dañu koy def ci ci ci ci ci ASC bi ci bien-être joueur yi financièrement métti na mais dañ koy def par passion pour ñeneen euh, ko ñu fi leen dégg comme yow mii dëkk Gueule Tapée et autres foofu lañu bëgg dégg ASC moo tax lu jaral rek incha allah dañ ko ci def. donc est ce que mën na jàpp ko de ci côté finance daal mën dex gi moom pare nañ waaw ci côté financier ci kàttanu yàlla bu baaxam bonne volonté yi mag ak ndaw ku ci nekk indi nga sa dërëm ak sa ñaar dërëm pour ñu def ko ci match bi ndax benn pas mooñ desee pour ñu pour ñu dem final ñu ngi ñaan yàlla daaw suñu cadet yi ñoo jëloon coupe ren ngi ci voie boobu ñu yàlla yàlla yàlla may ñu dem jeudi. ñu demaat beneen final. voilà mu nekkoon ah, difficile na trop pour di nga ko war a jeudi ñoom ak ASC Guney tey donc ñu leen ñaanal yàlla que le meilleur ci ñaari ASC yi merci beaucoup.